tàllal leen loxo yi gën di mindeef jaara way gën di mindeef jaara jiñ jiñ leen bismillahi rahmani rahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'uuzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ala man qaala bu'ithtu li utammima makarim al axlaq wa qaala aydan laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain ani sayduna muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dikkaat nañu fii ak yéen seen mbokk seen xarit xaadim seen di waxtaan ak yéen di nafar ak yeen sunu téere bu tedd bii nga xamante ne moom la ñu tiim muy lax Laxdariyu ci seen émission bu mag boobu di ma sopp rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam euh, macha allah ñu yeggale rek fi ñu toll woon ñu ngi woon ci page 4 ñu ngi woon ci wa yaxrumu alayhi alkazibu wal xiibatu wannamimatu walkibru walujbu walriyaax allahu akbar cheikh abdourahman laxdariw ma nga lay digal ma nga lay tere ma nga lay jàppaloo mi ngi lay bàyyiloo ci laxdariw tabaarakallah mu ne wa yaxrumu araam alayhi wax naa la alayhi boo gis ak lahoo boo gis dafay dellu ci mukallaf wa yaxrumu araam wa yaxrumu bon na wa yaxrumu ñaaw na wa yaxrumu jaaduwul alayhi ci mukallaf alkazibu fen fen nag baaxul araam na moo tax mun la bàyyil wax lu dul dëgg fen araam na sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale na jàngale bu yéeme ci wax lu dul dëgg alayhi salaatu wa salaam sallallahu alayhi wa sallam nee na kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma samia yonent yàlla Muhammad nee na doy na sëkk ci wax lu amul doy na sëkk ci fen lépp loo dégg nga dem nettali ko allahu akbar lépp loo dégg rek nga nettali ko ndekete yoo wax lu amul wax lu dul dëgg bu fekkente ne dégg nga benn xibaar dem nettali ko sallallahu alayhi wa sallam nee na fen nga kabura maqtan indallaahi an taqulu ma la tafalun bon na ñaaw na jaaduwul yàlla nee na ngay wax loo xam ne doo ko def kabura maqtan indallaahi an taqulu ma la tafalun baaxul kon booy wax waxal dëgg Seydina Muhammad wax na xadis bu garaaw xadis bu délicat xadis bu garaaw xadis bu délicat sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci dëggu ak ci fen allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam nee na aleykum bi sidq fa inna sidqa yazhabu ila al birri fa inna al birra yazhabu ila al janna maa yazaalu rajulu yasduqu wa yataxarra sidqan xatta yaktuba inda allahi siddiqan mu wax nag le contraire moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne iyaakum bil kazibi fa inna al kaziba yazhabu ila al fujuri fa inna al fujura yazhabu ila an naari maa yazaalu rajulu yakzibu wa yataxarra kaziba xata yaktuba inda allahi kazaaban yàlla nañ ci yàlla musal sallallahu alayhi wa sallam nee na kuy wax dëgg sallallahu alayhi wa sallam nee na kuy jëf dëgg sallallahu alayhi wa sallam nee na kuy jëflante dëgg nee na nga nekkee ko di wax dëgg di jëf dëgg di jëflante dëgg ku la gis gis ku dëggu sallallahu alayhi wa sallam nee na su boobaa yow moomu sunu borom dafay woote benn réunion ak malaaka yi malaaka yëpp toog mun leen maa ngi leen di xamal leen lenn laa leen di xamal bis ni ki tey bis ni ki tey sama jaam bee nga xamante ni mooy wax dëgg sama jaam boobu nga xamante ni mooy jëf dëgg sama jaam boobu nga xamante ni mooy jëflante dëgg bis ni ki tey boole naa ko ci sama constitution man yàlla tuddee naa ko ku dëggu ki gaa yi lii jar na wax dëgg ba dee jar na dëkkee wax dëgg sunu boroom woo ay malaaka def benn réunion sunu boroom wax ne diw moomu nga xamante ne mu ngi ci kaw suuf di jëf dëgg di jëflante dëgg man bi secrétaire tuddee naa ko ku dëggu ki allahu akbar xataa yaktuba inda allahi siddiqan ma tuddee ko ku dëggu ki ma boole ko ci constitution bi boole ko ci décret bi allahu akbar noonu la mel nag ci fen nee na kuy fen di wax lu amul dëkkee ko di jëflante lu amul di jëf lu amul dëkkee fen Seydina Muhammad nee na sunu borom dafay xëy benn bis rek woo malaakayi def benn réunion nee maa ngi leen di xamal leen bis tey waa jooju nekk ci kaw suuf di wax lu amul di fen bis sikki tey tuddee naa ko fenkat bi allahu akbar gaa yi lii jar na bàyyi xel de yal nañ ci yàlla musal yal nañ ci yàlla musal kon Cheikh Abdourahman al Laxdari nee na wa yaxrumu alayhi alkazibu fen day yëngal aras baaxul portable yi nag yàq na réew mi léegi ñu woola nga nekk estufar ñu woola nga wuy sa téléphone ne maa ngi Grand Dakar ay gars yi na leen dellu ginnaaw di jëf dëgg di wax dëgg di jëflante dëgg xadis boo xam ne ñëpp miin nañ ko que ñëwoon ci sallallahu alayhi wa sallam bëgg naa dugg ci diina ji waaye damay njaaloo waaye damay naan sàngara waaye damay sàcc waaye maa ngi fen sallallahu alayhi wasallam ne ko warlul ma rek bàyyi fen warlul ma rek bàyyi fen allahu akbar warlul ma bàyyi fen te nga dugg ci diina ji mu ne ko d'accord mu bàyyi fen mu suba sàcc jot dara deful sàcc mu ne ah su ma sàccee rus naa wax sallallahu alayhi wa sallam ne sàcc naa ndax léegi jullit laa rus naa wax sallallahu alayhi ne sàcc naa te su ma sàccee ñëw wax koo ne sàccuma fen naa ñu xaaral ma bàyyi sàcc mu xëy suba bëgg njaaloo mu ne ah su ma njaaloowee su ma njaaloowee rus naa jàkkaloog sallallahu alayhi wa sallam njaaloo naa te su ma njaaloowee ñëw ne njaaloo ma loolu fen la kon xaaral ma bàyyi njaaloo ci bàyyi bi mu bàyyi fen rek mu ne ah xëy suba war a naan sàngara mu ne su ma naanee sàngara rus naa wax sallallahu alayhi wasallam ne naan naa sàngara te su ma naanee sàngara ñëw si sallallahu alayhi wasallam ne ko naanuma fen naa kon xaar tey ma bañ a naan noonu la ko jàppoo ca la jóge bàyyi gim bàyyi fen ca la bàyyi naan sàngara ca la bàyyi sàcc ca la bàyyi njaalo ngir bàyyi bi mu bàyyi fen rek gars yi nañ ko bàyyi baaxul bi ci tegu mooy wal xiibatu Cheikh Abdourahman Laxdari nee na jëw lii mooy lekk nit boo diggee wolof di wax naan ngeen baal ma ci wax ji ngeen baal ma waaw ah, ngeen baal ma boo diggee wolof di wax naan dëmm dëmm waaw ah, mooy lekk nit alquran nee na ndax bëgg nga tiim sa mbokk jullit ndax bëgg nga tiim sa mbokk jullit dagg ci yàppam bokk jur boo xam ne médd la néew la nga dagg ci yàppam di lekk allahu akbar ba kenn bëgg ko kon boo jëwee mi mel ni yaa ngi jël sa mbokk jul di ko lekk wa namimatu ak ràmbaaj mooy yées ñëpp ràmbaaj mooy di boole ay nit boole ay nit ràmbaaj namimatu ràmbaaj ñaar ñuy ànd wala ñaar ñuy sëy wala doom ak baay wala yaay ak doom nga dem ci kenn ku ci ne fexe loo ko wax ba dootul bëgg gis moroomam danañ ci àll musal nga ñëw jàkkaarloog ndey wax ko loo xam ne ci doomam dootul bëgg ti gis doomam nga ñëw ci doom wax ko loo xam ne ci yaayam dootul gis yaayam nga fekk ñaar ñuy ànd fukki at ñaar fukki at fanweeri at ñëw ci kenn ki wax ko loo xam ne dootul bëgg gis moroomam araam na booy dee dem safara namimatu rambaaj laa yadxulul jannata an namima sayyidna muhammad nee na alayhi salaatu wasalaam nee na du dugg mukk mukk àjjana kuy rambaaj di suusale ay xol suusale ay xol wal kibru ak rëy rëy baaxul rëy baaxul yaay kan bay rëy yow loo am bay rëy loo xam bay rëy loo am bay rëy yaa ngi jóge ci toqantal ma niyu buñ la fi bàyyee léegi léegi ku la fi romb taf ba kanam laa tatakabbar wala tatajabbar innaka abdun wa lasta bi shay'in bul ngande ngandelu bul rëy rëylu as njaam kese nga doo dara looy rëy rëy mbubb sunu boroom la mbubb sunu boroom la ko sol mu cëkk la rëy baaxul wala oj bu ak naw sa jëf naw sa jëf waaw lan ngay naw jëf xel mi yàlla moo la ko jox kàttan gi yàlla moo la ko jox dafay jeex kattan gi yàlla moo la ko jox xam-xam bi yàlla moo la ko jox am na yàlla yu muy jaay am na yu muy maye am na yu muy abale yàlla subhanahu wa sunu borom am na yu muy jaay am na yu muy maye am na yu muy abale gis nga yi muy maye bokk na ca jikko ak fit dala koy may déggoo wolof ne jikkook ak borom pax mën na la ko may ci mbaaxam sa jikko ak fit bi la yàlla jox sunu borom dala koy may am na yu muy jaay yi muy jaay mooy barke barke tarbiyu yu moo la ciy jotale donc nga tarbi yu pour am barke ajjana pour nga dugg fa foog nga jaamu yàlla dala koy jaay ajjana foog nga jaamu yàlla yooyu daf koy jaay mais am na yumulay abal kattan gi dala koy abal allahu akbar gis gi dala koy abal dox gi dala koy abal mën-mën gi dala koy abal léegi nga jékki-jékki boo bëggee dox ne ñaadam ñaadam ñaadam ñaadam boo bëggee daw ne lay boo séntoo lu mu sori sori sori sori sori sa gis gii boo séntoo lu mu sori sori sori di nga gis waaye dinga nga xëy bés billaahi di nga bëgg gis muta la di nga xëy bés sa kàttan gi la yàlla jox nga xamante ne boo naxul sa bopp xam ne rocc na sa kàttan boo bëggee dox di nga am troisième pied ñu ñu koy wax bant ngay sukkootu ak moom kàttan gi jeex takk man-man gi jeex takk gis gi jeex takk dégg gi jeex tàkk ba ñëpp màbb di nga xamante ne kala joxoon kàttan gi nangu na yëfam tabaarakallaa kon waxtu wi def nañu ñoo ngi yemale foofu wax wi tabaarakallaa waxtaan wi ñoo ngi yem ci euh, wala bu ba ci émission yi du ñëw ñu yeggale ko seen émission bu rëy boobu di ma sopp rasulaay seen site bu mag boobu di fkr 92 point com kenn ko doon defal mooy seen xarit xaadim seen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tàllal leen loxo yi gën ji mindeef jaaro way gën ji mindeef jaaro